ma leen di wax foofu Adama mos ngeen ko gis muy wax loo xamante ni du am lépp lu muy wax rek day teg preuve ci wet bi na mm-hmm. hmm? mm-hmm. cinq cent mille laa mm-hmm. mais na génnee euh, transfert bi salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum Guèye nangul ne daanu nga sénégalais yi dof dof lu naan non mais Guèye da doon démasqué Adama pour wane ne Adama day fayee ko xaalis wala dañ koy fay non il a bien piégé yéen a dof wala moom mu surux man la man man ki may PSA juddoogul ki may saraxa juddoogul xanaa xamu leen kan mooy Boss Day Negri man dara sefu ma man kenn mënu maa PSA ci yoon rek laay dox ñaari transaction yaa ngi noonu 11h lan ma njëkk a yónnee 200000 numéro bii maa ko masqué parce que dan may boleke ma ne ko bu matul duma def vidéo bi ñu yónneen waan ma ay vers 19h 8h yooyu yeneen mil mu mat 500000 ma commencé dóoral leen sa waay samedi la xew lii lépp samedi la amul lu ma ciy modifié gay te ngaa bëgg réglé <laughs> xaaral ma tëgg leen audio bi ngeen dégg. nu mu demee yaa si jàmm waa ji yónnee na ma deux cent mille trois cent mille ci des nag bu duggul du ma def vidéo bi leer laa la wax dama bëgg mu leer rek merci. waaw coono li am problème ñoo far ok. ok kon baax na merci beaucoup jaajëf ci kanam. ci une heure vingt heure door ko tombéeg mu dugg. jeex na kon baax na. xanaa lii leer na <laughs> wuy ma gars yi Adama kenn mu mënu koo saraxe maa leen gën a bandi ne leen a wuyu preuve laay dox yaa ko doon laaj mi ngi noonu.